ñuy ñëw tey pour jàppale euh, communauté transporteurs yi euh, ñëw ci context boo xam ne ñëpp xam nañu ko dafa am feebar bu am Sénégal feebar boobu jeexagu fi feebar boobu ñun ñëpp ñoo ko war a xeex feebar boobu nag dañu ko war a xeex au niveau du système de transport particulièrement le transport public ñuy xool gaaru ceeru Mbuur bi ni ñu waxante woon ak ñoom bi ñuy ubbi transport interurbain ndax ñu ngi sàmmanteeg moom ba léegi est-ce que nit ñi nekk ci ngi sakk masque est ñu ngi sol est-ce que ñu ngi jël température nit ñi balaa ñuy yegg ci kaar yi est-ce que ñu ngi raxas loxo yi est-ce que ay gel am nañ fi loolu nag gis nañ ne wax dëgg yàlla ci rapport bi ñu defal ñu ngi sàmmante ak moom ñu ngi leen ciy jaajëfal beneen app bi mooy dafa am loi bu bees boo xam ne nii loi la bu ñu yóbbu ci assemblée nationale mu voté ko loi boobu tudd loi d'orientation et d'organisation des transport terrestres loi boobu lii ko tax a jëkk dëgg dëgg dëgg mooy yeesalaat transport moderniser ko ba nga xam ne transport ci Sénégal day nekk ci anam yu mucc ayib d'avoir am confort d'avoir am sécurité mais aussi d'avoir am li nga xam ne rapidité lors nag communauté bu organisé wu moo koy am ay chauffeurs yi ñu professionnalisé ñoo koy am mais aussi euh, état bu dugal loxoom ci li nga xam ne renouvellement du parc ak modernisation des gares routières loolu aussi moo koy am donc waxtaan boobu la ñu andi woon defoon nañu waxtaan yi nag jox ko chauffeur si jox ko syndicat yi jox ko opérateurs yi day toujours bu ñu dajee ñu defal leen benn résumé boo ci loi bi pour nous mën a préparer changement ak réforme yi nga xam secteur bi. deuxième, bi la solidarité ku nekk xam ne président République dafa gëm solidarité dafa gëm ndimbal ndimbal yooyu nag yëgsi na ci transport parce que avant euh, kit alimentaire yi di ñëw 8 milliards 250 millions la jël jox ko transport mooy transport interurbain transport urbain gaaru ceer yi bàyyiwuñu kenn Chauffeur, yi rek moo desoon chauffeur, yi tey andi leen kit alimentaire 14 400 kits alimentaires kit alimentaire nous avons koy ci de un milliard Nous avons commencé jox avons 582 kits alimentaires kit bu nekk am nga valeur 66 000 francs Nous avons fait président de 8 millions jox ko gaaru 67 millions de francs CFA dugg nañu ci yi région de Thiès gaaru département de Mbour lu mu fait 23 millions loolu lu ñuy saluer la lu ñuy rafetlu la waaye day wane ne rek entre chauffeur yi ak transporteur ak état dañu war a lëkkaloo bokk ndey bay parce que transport dafa am solo ci àddina dafa am solo aussi ci sénégal émergent waaw ah, loolu yàlla def na wax dëgg yàlla man day ci jàpp wàccoon ak euh, déclaration de patrimoine boobu